yàlla nañu yàlla may mbooloo mu takkoo nii ndeysaan mbay sàppare sàppare démb la yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala dogal am napp ci kaw mu def soog daal di cay doxe ñàkk bakkanam yóbbaale ci soog bi bi ñaari xale yoo xamante ne si ne ay tuutànk lanu waaye ñoom ñëpp rek yàlla leen buur yàlla dimbali yërëm leen xaale leen na ay fasu ci seen kaw ci barkeb Sëriñ Tuubaa mbay wàcc na kaw suuf dugg ci biir suuf yàlla na ko yàlla teelu ci barkeb Sëñ Ibra